Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. bokk moom ci luy nuru naqar ndax suñu borom wax dëgg yàlla dee la njëkk bind ci dund kon nag dañ ko dul miis rek dañ ko dul miin waaye nag du jaax si kenn kon nag ñu ngi koy ñaanal ko def ci moom ndax kat dañ ne mooy biddéewu njaboot ci boo doonee biddéewu njaboot ci moom maanaam coono yi day bari te ku ne gis nañ ci li mu nekkoon nekk ci dëgg yàlla dakk ko ñëw ngir lii ndax nit amul lu dul way juróom donc ba dañ ne fecc liir bu neexee day jaatee ca wag yi bu dul woon way juróom moom fii mu agsi du fi agsi kon nag yàlla na ak ni ko fédération bi mayee ñëw delloo way juróom ci boromam. doo ko delluwaat ci yitteem. Mm-hmm. ndax uh, fii fi dañuy root rek. Mm-hmm. fan daal mm-hmm. bu bu weesoo bu weesoo ñaan yi digganteem ak papaam ñëpp xamoon nañu relation yi amoon. Ah. tey métti na lool sa waajur bu góor dem boo ko doon uh, digal nga koy wax lan nga koy digal. waaw ah, xanaa mu delloo uh, xelam ci sunu borom rek. ndax sunu borom mi nga xamante ne bii moom mooy juróom. ma Cheikh moomul way juróom. daa jaar ci moom. Hmm? jaar ci way juróom ñaari góor Cheikh. amoon nañ complicité nag mm. meloon ni ay magarak mm. waa ay morom ñëpp gis nañ ci ñëpp gis nañ ko ñu nit xamoon nañ ko ndax xamoon nañ way juram miinoon nañ mm-hmm. miin nañ ay mbokkam mm-hmm. ndax li ma wax sànq mm-hmm. ne moom la moom la ñu suñu mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu jaar ni ko ci muñ bu rafet moom ab jullit la gëm nañ ni loolu du du metti ci ku ñàkk way jur nag dina metti góor muy bu jigéen waaye nag boo dëgërloo doyloo suñu borom suñu borom moom li ñu naan xuru bi ngay am ci sa ci sa ci sa xol mbaa mm. ci sa yaram mm. suñu borom moo la koy fàttal mm. yaa ngi koy wax léegi rek nga ñu daanale yaa ngi wax léegi ni ko xam xamoon nga ko mm-hmm. tey ci wàllu jikkoom nekk noonu lan moo la si gën a marqué xanaa fulla ak ak ak ak sincère sincère ba mel ni ku naqari dara mm. dëgg yàlla waaye mm. fonk li muy def fonk liggéey mm. waaw de tax mu daan critiquer lu bari dafa bëggoon lu parfait donc lu parfait moom amul sax suñu borom rek a parfait waaye moom bëggoon ku nekk di nit ku nekk ca la ngay yëngu rek moom day bëgg nga cee redoubler effort mm-hmm. moo tax bu ñëpp ne baax na sax moom mu indi la critique mm-hmm. ndax critique day baax ci doomu aadama ndax mm-hmm. day dolli doomu aadama kon moom li ah, mu bëgg woon xale yi ah fonkoon doomu aadama fonkoon liggéey ak sincère loolu lañ xamoon ci ay jikko ah te loolu gis nañu macha allah dal na njabootam jërëjëf ñi ñi ko ñi mu bokk Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal.